auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman yéen téléspectateurs yi nga xamante ni yéenay bàyyi xel seen émission bi nga xam ne mooy xam sa démb te lépp itam ñu jublu ci rek ngir wane li nga xamante ni mooy suñu aada ak suñu cosaan rawatina ci wàllu wérgu yaram te lépp itam aju ci wàllu gàncax ak li nga xamante ni mooy ni muy àndee ak euh, turu yàlla yi ñu am tey ji koo xamante ni suñu kilifa la suñu waajur la ñu dem seeti ko ngir bëgg a jokkoo moom ci li nga xamante ni mi ngi koy yëngu ci wàllu médecine traditionnelle waaye naka noonu di leen présenté itam bu baax a baax cabinet bi nga xamante ni itam moom la yor ci diwaanam fii nga xamante ni mooy ci golf cité Aliou sew ñu gën koo xam ci tur imam Madiara ñaan imam ñoo ngi lay nuyu di la daral ci émission bi nga xamante ni mooy xam sa dem ñu ngi lay fay bismillahi rahmani rahim alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ixwaani asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi ginnaaw bu ñu santee borom bi tabaraka wa julli ci yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi sallam ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd te mooy di leen wax ni jàmm yàlla ak yërmandeem barkeem yàlla nekk ci yéen di jiital ci nuyoo bi nag ah, ku deme ni sëñ Sam Seck mi nga xam ni moo nu fi invité di ci teg waa tele bi yépp la dale ca kilifa gu magga ba ci suuf ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar waaye di ci teg sama waa quartier cité Alioune Sow bu Golf Sud waaye di ci teg sama waa dëkk Kër Ibra Ñaan ak la ko wër yëpp Canaba Seck Canaba Gaar xalif général ba ak njaboot gi yëpp fépp fu waay toog dinu seetaan muy biir réew mi ak bitim réew ñëpp ñu ngi leen di wax ni jàmm yàlla ak ma dem barkeem yàlla nekk ci yéen. yaa rabbal aalamiin jërëjëf imam dégg ngeen nuyoo bu solo boobu nga xam ne moom la imaam nuyoo kon ci biir nuyoo bi am na ci loo xam ne kon jaratu ñu ko koy laaj ndax wax na fa nga xamante ne mooy cosaanam wax fi nga xamante ni tam mooy dëkkam wax itam maanaam ci li nga xam ne moom lay yëngu waaye imam laaj bi ñu lay njëkk a laaj mooy dañoo gis euh, turu daara ja nga xamante ne moom nga yor muy centre Daaru Salaam pour la médecine islamique traditionnelle ana loo wundu tur woowu noonu jërëjëf li wundu tur centre Darou Salaam mooy baraboob euh, kërug jàmm gi lépp loo xam ni ñu ngi ko yëngu rek dañuy ñaan yàlla defal nu ci jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj lépp loo xam ni am nga ko te amuloo jàmm di nga bàyyi loolu wuti jàmm kon nag ñu ni centre Darou Salaam pour la médecine islamique traditionnelle ngir nag li aju ci wàllum paj boo xam ni ci wàllu lislaam la alquran turi yàlla yi yi nga xam ni ñoom wax nañu ni alquran ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox nañu ci ay xam-xam yu leer ci ni day faj lu demee ni lem lu demee ni zamzam lu demee ni layduur lu demee ni habatu sawda bari na lool yooyu yëpp mën naa dugg ci médecine islamique bu ñu nee traditionnel nag comme ni nga ko waxe lu aju ci sunu wàllu euh, aada ak cosaan ci garab yi nga xam ni moo nu wër euh, euh, sekk ñu bari xamuñu ni li ëpp ci garab yi ñuy wër yépp ay plante médicinale lañu tuuti moo ci plante toxique téeméeri garab yoo jël man nga ni juróom-ñeent fukk bi ak juróom ay plante médicinale lañu ay garab yuy faj lañu dale ca xob ya tóor-tóor ba xasma reen ya doom ya lépp day faj waaw ci na nga ko war a jëfandikoo rek nga jëfandikoo ko rek mu dal lay fajal lu nekk ci yow moo xam yëg nga ko nag moo xam yëguloo ko kon daal ci tënk daal bu sa laaj boobu loolu laa la ci doon tontu. macha allah wax dëgg yàlla tontu boobu itam leer na lool macha allah am na itamit solo ndax xëy na gindi dolli nga ci tamit xam-xam boo xam ne amaana umpoon nañu bari ndax mooy ni ko waxee téeméeri garab yooyu jël juróom-ñeent fukk ya boo xoolee fi ne ay plante médica médicinale la kon loolee tawféex la kon la ca doon plante toxique muñ koy xool lu néew la fukk la cay doon waaye tey jii buñ koy xool imam ci ñaareelu question bi bëriwaan na ñoo xamante ni dañuy jóg di yëngu ci wàllu fajum aada ak cosaan boole ko ak waaye ni nga ko waxee léegi plante yi ku ko jàngul ana naka nga mën a fajee doomu aadama ci plante bëgg ko boole ak turu yàlla yi. waaw euh, lépp lu mu doon xam gi da caa jaadu faw nga jàng ko ba xam ko waaw ni nga xamee ni noonu nga war a xamee feebar yi ak seeni màndarga noonu nga war a jànge itam feebar bu nekk lan moo koy faj ci yi ñu waxoon euh, niki noonu ci turu yàlla yi ak alquranul karim alquranul karim borom bi tabaraka wa taala moo nu wax ni wa nunazilu min alqurani ma huwa wa rahmatun lil muminin nee na maa wàcc ci biir alquran loo xam ne day faj rawatina nag way gëm ñi xam nga kook nekk lu leer bu fekkee ni tur yàlla yi la yàlla ni walilahi al asmaul fad'uhu bi wa dari alladina yulhiduuna fi asmaa'i sayujzawna ma kaanu ya'maluun yàlla nee na yàlla am na ay tur yu rafet waay waay woo leen ko ci waay ñaan leen ko ci bari na lool juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent woo leen ko ci ñaan leen ko ci te ngeen bàyyi nag ñi nga xam ne ñooy jàngal tur yàlla yi aha kooku nag ak mbuxaaba ak njibar mu daal koy dàq nee sayujzawna maa kaanu yaamaluun nee na ñooñu suñu ko bàyyiwul dinañu leen fay liñ doon jëf de ndax loolu yàlla da koo tere waaw kon jàngal ñaanal mu leer nañ macha allah waaw. macha allah imaam loolu loolu amati na solo macha allah wax dëgg yàlla ci biir loolu itam bu ma la déggee ci ci ci ci ci ni nga tontoo laaj bi léegi bokk na ci kon waaye ji nga xamante ni moom tawat dafa ne ci moom ba mu bëgg ko saafara bokk na ci li ko cay njëkk dimbali ngëm lay doon ndax dégg naa la ci biir wax ji sax nga indi imaan kon day mel ni kon moom kay saa kay saafara la lay tawatam ngëm moo ko ci jiital moom la ciy jiital ba noppi ngir saafara ga mën a antu macha allah rabbi loolu am na solo imam wax dëgg yàlla kon nag yéen a déggandoo mbokk téléspectateurs yi waxtaan yi nga xam ne moom la ñu seq ki nga xam ne mooy imam Ma Diarra Niane moom it ni ñu ko waxee rek dëkk fii ci golf cité Aliou Sow wax dëgg yàlla numéro téléphone am tamit wax dëgg yàlla di 77 648 24 01 77 648 24 01 wala ba tey itam ci Tigo bi nga mën ko jot ci 76 386 23 24 76 386 23 24 wala ba tey Expresso bi itam di 70 605 91 29 70 605 91 29 boo ko woowee rek incha allah mu tegtal la fi mu nekk ci cité Aliou Sow villa numéro 48 bi ci golf rek centre Darou pour la médecine trad islamique et traditionnelle Oustaz euh, beneen laaj bi ma ciy teg. ñu jëg dugg nag ci wàllu li nga xamante ni mooy xeetu jàngoro yi ñu gis tey ci suñu jamono jàngoro ji jàngoro asma bëri na ci jamono bi ñu toll bu nawet teruwaan suñu mbokk yi ku ci tawte wala nga ne ci àll ba ngelaw fekk la fa wala lay wàcc ci sa kaw asma da lay faral di sonal lool lool lool lool ñu bëggoon nga faram-fàcceel ñu tuuti ci asma ba noppi ñu door dikk ci question bi nga xamante ni mooy yow naka nga ko fas yéene saafara. jërëjëf asma. dafa bokk ci feebar yi nga xam ni maladie héréditaire la maanaam feebar yi ñuy donn waaw waaye itam maladie naturel la day dal nit ki noonu rek te incha allah dinañu ci ñëw bu ñu ñëw ci xeeti asma yi pour gën ko farañ fànce euh, asma ñenn ñu bari dañu koy tuddee euh, dañu koy boole ci maladie périodique yi maanaam feebar yi nga xam ni ci ay jamono lay ñëw comme ni nga ko waxee asma comme day faral di yëngu ci jamonoy nawet mais yooyu ay façon yi asma am la mais du sax yëpp xanaa xamu ni asma am na asma yoo xam ni tàngoor lay bañ am yoo xam ni sedd lay bañ am yoo xam ni saxar lay bañ moo xam saxar su naqaree moo xam su neex même buy saxaaru cuuraay bëggu ko am yoo xam ni ngelaw lay bañ kon asma yi dafa bari ay façon moo taxit mu bari lu muy bañ euh, asma am na yenn façon asma yoo xam ni mu ngi jëkke ci li ñuy wax sinusite ak walla ay bronchite nga xam ni euh, fii rek la doon yem muy soj di xesan bët yi léeg-léeg muy xesan nopp yi léeg-léeg bakkan yi di fat mais yooyu en général suñu ko fajul léeg-léeg day wàcc mujj nekk asthme loolu la ñuy wax sinusite asthmatiforme wala ñu naa ko bronchite fan waaw mais yemul ci yooyu rek asthme comme feebaru poumon la poumon mooy xëtër yi xëtër yi ni ko yàlla bindee noowu nit ki dafa am buum guy jóge ci xëtër yi di yéeg ci kaw tubaab yi di ko wax voie respiratoire aérienne arab yi di ko wax almari ul ala léegi li tax asma bon te doy waar mooy asma bi bu jàppee nit ki buum googu lay ravager waaw nga xam ni da koy bloqué waaw moom ngay dégg ñu naan wuu kii de moom asma ji de koo jàpp mënatu la noyyi bu tëddee sax dafay fatt dal di jóg waaw waaw ndax dafa am façon asma yoo xam ni directement foofu la mooy li ñuy wax euh, asthme avec trouble respiratoire ak asthme avec crise respiratoire gis nga ñaari asma yooyu ñoo gën a doy waar ci asma yi ñaare koo fekk mu loru ci asma rek ñu oh moom de dafa kii rek maara day taali rek ñaari asma yooyu la ñaare waaye nag macha allah euh, bu fekkee ni kooku teel na ko xam faju macha allah day wér foofu laalay dugg laale ci euh, ñi nga xam ne dañuy wax naan asma du wér man wax dëgg yàlla dégg naa ko ba tàyyi même ay pneumologue sax dégg naa ñu wax ko mais nag wax dëgg yàlla ci nun traditionnellement islamiquement traditionnellement day wér ndax nun rek li jaar ci nun wér nun moom xamu nu mu toll ci ak bareem kon nag xëy na loolu day dugg ci feebar yi nga xam ni euh, bu demee ci côté médecine moderne bi xëy na mën nañ caa bañ a gis wér wér mën na caa bañ am ñu ñëw ci traditionnel mu wér niki noonu itam da ngay am ay feebar yoo xam ne traditionnellement da ngay jéem du wér ñu dem fale mu wér loolu li muy tekki rek mooy yàlla mi wàcc jàngoro yi moo wàcce li koy faj feebar yëpp day wér yi nga xam ne xam nu ko ak yi nu xamul nag ndax yonente bi sallallahu alayhi wa moo ko wax moo wax ni inna allaha taala anzala daa wa dawa wa jaala li kulli daa in dawa an fa tadaawu wala tadaawu bi xaraam neen daal da ngeen xam ne yàlla aji kawe ji moo wàcc jàngoro wàcc li koy faj bépp jàngoro bu mu wàcce wàcce na lu koy faj su ngeen feebaree faju leen gëstu leen lu leen faj condition yi daal mooy bu leen fajoo lu xaraam kon daal lii laa la doon indil doon naa la wax ne la nag euh, feebar bu ñuy donn la waaye itam dina dal na nit ki noonu rek kooku preuve bi ma ciy indi mooy am na façon asthme bu ñuy wax asthme fonctionnel xam nga lan mooy asthme fonctionnel mooy kuy liggéey ci fa muy liggéey produits yi muy liggéey liggéey ci ay pënd liggéey ci ay produits chimiques li ay ci ayu ba asma dale ko foofu man gis naa ko man ñoo xam ne ci seen liggéey la leen asma dale kon boo jàppee ne nag asma ku ko donn wu rek du ko am kooku moom euh, erreur la daal njuumte la. <laughs> loolu am na solo loolu wax dëgg yàlla kon dégg ngeen ko noonu mu mel ni kon asma itam ñu bañ a jàpp ne rek benn xeeti asma moo am waaye asma yi bëri na ay xeet ak benn bu ci nekk itam ak la muy bañ benn bu ci nekk itam am na loo xam ne ni mu ni mu amee li muy bañ jàpp naa ni noonu la amee itam lu ko mën a sooke ndax mooy ni nga ko waxee léegi asthme bi nga xamante ni euh, fonctionnel la yaa ngi ko jëlee ci maanaam sa bërëbu liggéeyukaay nga xam ne yaa dem ba fexe asthme bi ne ci yow ndax saxaar seeg poussière beeg yu ni mel moo koy indi macha allah loolu am na solo imam euh, beneen laaj bi mooy dugal foofu noonu ci ba tey ñu des ci asthme mooy tey jii imam gis nañ ay ñoo xamante ne jaar nañ ci moom am résultat ba ñu bëggoon ci moom wala am ci lu kawe seen njot wér nañu ndax am na ñu ñu ci gis am na ñun ci jokkool nee leen émission bi tey xëy na ni mu demee la waaye faaw ñu jëlaat beneen yoon boo xam ne am na leneen loo war a wane ndax buñ jàpp ni imam dafay li muy wax ni da koy defee nii rek waaye am na am na cabinet boppam boo xamante ni ay médicaments yoo xamante ni médicament traditionnel la ay pommade ak xeet yu ne waaye loolu dañu ma loolu dañ koy dëxañ ba beneen émission tey ñu waxtaan ak nit ñi tojal leen jàngoro yi wax leen jàngoro yi li koy sabab ak naka lañ koy saafara kon tey imam asma boobu buñ ci desee ba tey ana saafara bi naka nga naka nga nga fas yéene saafara loolu nga xam ne mooy asma yi ak xeet itam waaw alhamdulilah euh, comme noonu ma la ko waxee euh, xeet yi ni mu baree noonu la garab yi itam mel mais itam léeg-léeg macha allah dafay tase li ci gën a am solo nag mooy nit ki Euh, bu teelee yëg ni asma mu ngi ci moom rek na ko teel a faj dafa naqaree faj nag ndax boo bàyyee ba mu chronique maanaam asma bi nga nekkee xale topp rek ñi naan du wér nga ne ah moom de calmant rek lañ ci mën a am nekk ci calmant yi rek doo wut lu koy faj day gën a sax gën a dëgër gën a naqaree faj bu ko defee yooyu day naqaree faj waaye nag du tere ba léegi macha allah day wér waaw day wér ku bépp boo xam ne yàlla. nee na incha allah dina wér rek ci garab gii rek fa tabaarakalaa day wér kon loolu daal lañ la doon indil ci paj mi euh, ku mu dal daal na teel a jóg rek teel a faju ji macha allah day wér ci garabu yi nga xam ni mooy yu lislaam yi waaye itam yu traditionnel. jërëjëf imam wax dëgg yàlla macha allah laaj bi am na solo tontu bi tamit am na solo macha allah naka noonu rek euh, bokk na ci kon ni ni ni ñu ko bokkandee déggoo rek ñun téléspectateurs yëpp dégg ngeen kon asma ku ko am. ba mu daaneel la wala bul xaar mu daaneel la boo ko amee ba mu leer ni am nga ko jugal nga teel cee jóg ngir mën a li nga xamante ni mooy sa wérgu yaram nga mën ko am na nga ko bëggee ndax nag ni ko imaam waxee léegi nii suñu borom subhanahu wa taala moo wàccee mbooleem jàngoro yi ne ci daaru dunya waaye nee na naka noonu mu ko fi wàccee itam def na ca biir gaalam ga la nga xamante ni moo koy saafara ni ma koy faral di waxee rek amaana saa su ne gëstu mooy tax nga jot ca ak jàng ko waaye amaana tamit itam ka gëstuwul jàng ko itam mënu cee saafara waaye jàngoro ju suñu borom wàccee bu ne rek moom def na ci euh, kàttanam loo xamante ni dana ko wéral kon loolu itam nañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolu mooy indi sababu di tax ñu taxawal émission bi nga xamante ni mooy xam sa démb ndax lu ñuy wax alxuraan ci démb la bokk ndax mbiru suñu borom la plante tamit démb la bokk ndax cosaan la kon bu ñu lëkkalee ñaar yooyu ci mbaaxu suñu borom jàpp naa ni kon mbooleem jàngoro bu doomu aadama bi am rek mën na wér waaye mooy ni mu ko waxee sànq itam amaana lii suñu borom dina jaarale ak wéram ci ci ci traditionnel waaye dinaa jaarale lii itam ak wéram ci li nga xamante ni mooy mooy mooy médical euh, médecine moderne kon nag macha ñuy santaat yàlla bu baax a baax imaam deuxième question bi ñu dugg mooy li nga xamante ni mooy city ndax city moom it defe naa ni bu ma ko bu ma ko bàyyee buñ ko bu ma ko bàyyee xel dafa xaw a mel ni asthme ndax dafa bëri ay façon bëri nu muy dalee doomu aadama bi te jàpp naa ni nit ku juddu rawatina Afrique gi ñu nekk city mi ngi ci yow ana loo ñuy indi ci city jërëjëf euh, li nga wax dafa am solo euh, presque ku nekk siti mu ngi ci yow léegi nag euh, bu demee ba feeñ nag booba la ëpp la booba nag dañ ko war a faj nde bu normalee rek presque sax doo ko yëg waaw waaye bu ëppee il faut nga yëg ko siti boobu nag moom bokk na ci ba tey yi nga xam ne dañ koy doon ci ay maam bari na ñoo xam ni bu seeni maam amee woon siti day jàll ci baay bi romb ko wala mu jàll ci yaay romb ko ñëw ba egg ci sët bi loolu moom bari la mu ciy amee siti na comme ni nga ko waxee dafa bari ay façon am na ñoo xam ne seen siti fi mu leen di sonale mooy tàngoor wu ëpp bu fe di am ñoo xam ni dafay jàpp seen loxo yi di ko wowal koŋ te sax du liggéey tax am na liggéey yoo xam ne moom man nañ nit day dëgëral kii mais du loolu sax mais siti ba la am na ñeneen ñoo xam ni seen site yi dafay jàpp di xar seen tànk yi ak yi demee noonu nga xam ni même léegi ay chaussures fermées sax duñ ko mën a sol ndax seen testene yi daf koy xar loolu lañuy ñuy wax ulcère des pieds ulcère des pieds site moo koy waral léeg-léeg seen diggante baaraam yi lay xar weexal ko taal moom la ñuy wax ulcère des doigts waaw loolu yooyu yëpp site yi la. xar boobu mu koy xar ni mooy sotti ndox moomu ngay gis noonu ci biir. mu ngoog mooy sotti ndox moomu ci biir. Mm-hmm. waaw léeg-léeg nga xam ni nit ki bu solee ay chaussures fermées tuuti rek. Mm-hmm. tànk day tàng jër presque du bëgg lu dul summi ko. Mm-hmm. waaw te am na benn jamono boo xam ne itam bu ko bu summiwul. daf koy sonalaat ba léegi dafa maanaam dafay gën a yokku euh, xar-xar yooyu góom góom yooyu. muy def kon loolu li muy tekki mooy siti ci boppam rek. <laughs> moom mooy li nga xam ni baaxul surtout dina jàpp jigéen ñi ba di leen indil ay avortement waaw avortement ndax tàngoor wu ëpp wi nga xam ni moom lay def ci ñoom dina leen jàpp ba du ñu am bànneex seen digganteeg seen borom kër ni ki noonu ku góor ki moom itam dina ko jàpp ba presque xaw a téye kattanam moom itam wala sax daanaka moom itam muy xaw a euh, du sawar ci yëf yi moom itam ba léegi siti dina waral loolu moo tax sites euh, yi moom itam euh, feebar bu bon la moom itam képp koo xam ne feeñ na ci moom na góorgóorlu faj ko moom itam garab yaa ngi fi bari lool macha allah te li ci ëpp boo teelee jóg rek yàlla dimbali la saafaraal la ko macha allah. waaw macha allah imaam wax dëgg yàlla euh, am na solo lool ni nga koy waxee boobu ba tey wax dëgg yàlla ndax euh, naka noonu rek jot naa ni fi mu nii yëf itam gëstu bi da cee am solo xam gi itam da am solo ndax jàpp naa ne mooy tax saafara mën a am kon nag dégg ngeen imaam li mu ci wax ndoxum siti bëri ay façon waaye li ci solo rek mooy boo ko sentiree ci sa bopp jógal nga daal di ci jëf sa kéemtulaay kàttan ngir mën ko saafara moom kenn la ci ñi nga xamante ni bokk na ci ñi koy saafara te wax dëgg yàlla ci ci base bi nga xam ne moom la koy saafara dégg ngeen ko ci ci ci ci ci alxuraanul karim la ci turu yàlla yi la waaye itam ci ci ci plante médicinale yi la bokk ni ma ko doon waxee rek boobu ba tey rek mi ngi dëkk fii ci nga xam ne mooy golf cité Aliou Sow euh, boo ñëwee ba ci cité Aliou Sow bi rek boo wootee ci numéro téléphone bi di 77 648 24 01 77 648 24 01 wala ba tey ci 76 386 23 24 76 386 23 24 wala ba tey expresso bi itam di 70 605 91 29 boo ci jokkoo ak moom rek incha allah nga daal di yegsi ci daara ja mu mën koo saafara ci kàttanu suñu borom imaam ñetteelu laaj bi dafay dugg si ci léegi bi ngay jeexal am na loo wax mu bokk ci ñetteelu laaj bi muy hémorroïde oustaz hémorroïde dem nañ ba ci jamono man li may woo ci doomu aadama par bés di ma wax ne ma dañuy danoo hémorroïde ñii mu dem ba mujj gi mu téye seenu ngóor ni ñu koy waxee ñii itam dem ba mujj gi dootuñu toog ñenn ñi dem ba mujj gi sax dootuñu sol yére ndax buñ solee yére hémorroïde bu génn bi defe naan dafay dafay am nu muy def te oustaz imam mu doon lu bari ci jamono ñu dégg nañ sax ñu ni toggaay bu yàgg da koy joxe lii da koy joxe lii da koy joxe waaye kenn ku nekk rek ak la nga jot ni moo la ko jox rek hémorroïde loo ñu ci mën a indil fi mu tam ni i waaw moom itam comme ni ko waxee wax dëgg yàlla feebar bu bari la bu sonal nit ñi hémorroïde euh, feebaru suuf la euh, ñu gën ko xame ci jàngoroy kajoor mu am na ñaari façon hémorroïde interne hémorroïde externe arab yi di ko wax basurul daaxili ak basurul xaariji muy hémorroïde bi feesul ak bi fees euh, hémorroïde ñu bari xamuñu ni bi nekk ci biir maanaam ay gambu lay nekk ci biir bi waaw bu interne bi émirate interne bi ay gambu lay nekk ci biir def lu demee ni ay bul euh, yu ndaw ak yi deme noonu léeg-léeg muy metti biir bi léeg-léeg mu koy jooy waaw léeg-léeg mu bari ci bari ngelaw lool waaw ballonnement de ventre bi loolu yëpp moom moo koy waral mm-hmm. léegi bu ko defee ci loolu interne boobu bu fekkee yàgg na ci noonu nit ki faju ko day ñëw ci ci externe waaw interne boobu ba tey euh, dina faral di ànd ak ay constipation ay seere li ñuy wax même mën na dem ba sax nekk constipation chronique waaw nga xam ni day toog lu yàgg du mën a dem wanag bu demee ci wanag presque ay ngelaw ak ay yooyu rek ay génn waaw léegi bokk na sax ñaare liy waral externe bi léeg-léeg ci ñi nga xam ni dañoo amee hémorroïde bi nga xam ni hémorroïde euh, interne la buy ànd ak constipation bu ñu demee dara kiiwul bu nees tuuti mu yebalaat leen dem nga ñuy dem di nalu di kii yooyu léeg nalu googu rectum ba day wàcc rectum mooy li wala fii di wax rasu waaw nga xam ne ni ko yàlla binde fii ginnaaw kër yi war a jaar euh, yëpp dafa mel ni laspère ni ko yàlla binde bu bu fekkee nag normal yaa ngi ci wér-gu-yaram euh, buy ñëw bu waree ñëw boo ñëwee ba mu war a ñëw lance gi day taweeku euh, mu daal di génn facilement waaw bu fekkee nag hémorroïde bi daf ko jàpp dafay mel ni lu tëj foofu waaw dafay mel ni fi muy demee nag dafa tëj dafa fermé wu waaw waaw loolooy waral na la mu métti bi moo tax moo tax loolu moom itam euh, lu bon la léegi nag bu fekkee ni nag loolu mu ngi koy faral di def léeg-léeg gis ci ñoo xam ni force gi ñuy forcé dañuy am ay déchiré ñu kii man daal dama doon jëm kii daal mais dama gis deret di génn euh, ay toqi deret loolu sax garaawagul ay toqi deret la mais léeg-léeg day dem ba am ay fissure anale nga xam ne ci sët yi di nekk foofa day am lu xam ne lu xaw a fett mu ne taf nga xam ne bu la ko waxee bu deret ji ni muy ñëw day mel ni xar mu ñu rendi loolu da ciy am da ngay gis ñoo xam sotti ko rek day gis ñoo xam ne dañuy dem ba animé waaw beneen boobu nga doon wax nag muy bi nga xam ne nag rectum bi dafa wàcc ba mu génn boobu mu gën a doyatiwaat waaw ndax moom bu delluwul ñaareel li ngay sol daf ko yàq. loo sol mu yàqul loo sol mu yàqul léeg-léeg dox sax du ko man li muy man daal daanaka mooy tëdd rek ak yi demee noonu nun xam nañ ci dara ñu ni ñu ni di seet si waaw léegi. léegi nag bu ko defee loolu ci boppam bu ñu ko xamee noonu moom itam euh, dañuy teel a jóg teel a faju waaw ndax bu noonu muy génne noonu léeg-léeg picc lay doon moom la ñuy wax sa picc kajoor léeg-léeg ay taat léegi nag dikku naan man daal dafa mel ni ak yàq moom ay jam ca suuf booba loolu la hémorroïde bi rekk la léegi nag ci tënk moom it ak bonam vraiment egg na ci yu bëree baree bari euh, dina téye góor gi nit ki même jigéen ji dina tax du am benn soxla ci borom këram wala buy sëy muy metti ak yi demee noonu yooyu yëpp mën na ko ko indil Euh, kon daal ci tënk daal mën na la yemal foofu xam naa dese nga yeneen laaj macha allah fi ne imaam fi ne waxtaan bi dafa tàmbalee neex te waxtu yu bëgg a dem bàyyi ñu fi moo ma xaw a jaaxal fi mu ne waaye waaye bokk na ci bu ma la déggee fi mu toll nii kay daanaka mu ngi noonu rek waaye ci biir laaj bi tontu bi nga indi léegi sama beneen question foofu la waat muy faiblesse sexuelle ndax dama laa dégg li nga ne fi mu ne émeraude bi dina téye doomu aadama bi ba dootul am ngóora wala dootul am yëg-yëgu séq ak soxnaam wala soxna si dootul am yëg-yëgu séq ak borom te wax dëgg yàlla imaam kon faiblesse sexuelle bu dee fekkente ni bàyyi ko na foofu noonu ci biir tontu tontu bi nga maanaam kon dafa mel ni dafa am lu ko lu ko lu ko relier. ak ak ak li nga xamante ni moom mooy mooy mooy mooy hémorroïde bi. lan nga ñuy indil kon ci faiblesse sexuelle ci biir. hémorroïde daf koy indi dafay indi faiblesse sexuelle. siti bi ñu waxoon daf koy indi. lu demee ni rab ku ànd ak rab. moom itam daf koy indil. daf koy indil mais itam euh, sëy bu bari. Euh, loolu itam baaxul moom itam bu yàggee dafay indi yu demee noonu euh, lu demee ni diabète dina ko indi lu demee ni tension dina ko indi bari na yi koy indi euh, yi nga xam ni dafa lié ak loolu am na ñoo xam ne bu ñu la nee da fi ne daal man loolu daf maa dab bu ñëwee nga defal consultation laaj ko rek ñaare dangay daal di xam fa mu jóge waaw bu ko defee su amee ci yii walla yeneen da nga koy dal di dugal ci loolu rek dal di koy fajal loolu rek macha allah fajaleel ko di mu dal di am jàmmam. tawféexam naa tënk rek alhamdulilah waaw am ndax imam fi ne xam nga suñu jamono ji euh, ñu bari ñu ngi wax ñaan ñi comme ni nga ko waxee rek waaye ba ci ba ci xeeti lekk yi sax dafa dafa doy waar ci xeetu hémorroïde ak faiblesse sexuelle boobu ngay wax noonu te buñ ko xoolee wax dëgg yàlla gannaaw suñu borom danoo wàccee ci jamono ñu a ànd itam ci sunna ak farata buñ demee ba jàngoro yooyu tam bëgg tas kër yi ndax kër yaa ngi tas mm-hmm. imam kër yaa ngi tas am na lu ma ci xam mm-hmm. te dara waralu ko lu dul maanaam ñàkk mën a jot ci sa bopp wala ñàkk mën a mën a mën a mën a euh, ni nga ko waxee woon léegi rek am soxla ci ci sa mm-hmm. sa soxna na ñàkk soxla ci yow te loolee kon bu buñ ko xoolee lépp mën nañ ko boole dëxañ ko tuddee ko tam ci faiblesse sexuelle ndax nga am war a am yitte ci sa soxna munoo am yitte ci moom wala amoo yëg-yëgu am ko wala même chose moom tam loolu daal di koy dal kon wax dëgg yàlla la taxoon ngeen di lëkkaloo ñu boole leen tam coonaa nga cee bëgg a judd moo tax toujours damay bëgg ci ci ci ci wàllu woowu noonu di ci waxtaan ndax ñu moytu li nga xamante ni mooy mbooleem li koy sabab waaye itam fexe ba tam li nga xamante ni wax dëgg yàlla noonu la nit ki mën a def ba mucc ci tam daal di am looloo tax ma di ci insister toujours. loolu nga wax euh, dëgg foofu moom li ma la ciy wax rek mooy lekk yi comme ni ko waxee noonu la amee vraiment am na ci yoo xam ni lekk yi moo koy waral boo gisee alimentation équilibrée nekk lu am solo xool ni ngay lekkee ak ni nga koy lekkee dafa am solo ndax insécurité euh, alimentaire mooy presque mooy insécurité sanitaire rek waaw. bu fekkee ni ngay lekkee contrôlé woo ko xool nu la neex ngay lekkee yaa ngi dugal sa bopp ci ñàkk kaaraange ci euh, wàllu wér-gu-yaram te kooku vraiment temps bi moo xat mais xam naa ni du ñu mën a dugg ci lekk yi waaye bari na ci lekk yoo xam ne vraiment <laughs> loolu comme ni nga ko waxee loolu daf koy waral diwlin ju bari surtout xorom su bari suukar su bari pat bu bari yooyu yëpp day waral yooyu waaw ñu delloo la kàddu am na solo xam naa ne rek na waxtu yu xam mm-hmm. ne suñu mbokk soxna feebaru a wax rek ngir yoo xamante ni mën a wax ci ñaari euh, jërëjëf kon liñ la ciy tënkal mooy jigéen ñi vraiment ñoom itam am nañu ay feebar yu ñuy jànkoonteel yoo xam ne mu ngi leen di sonal bay dox seen diggante sax ak juróom doom euh, loolu bu ma ci kii dinaa ci duggee ci lu demel ni euh, di gis mbaax muy metti tubaab bi di ko wax règle douloureuse règle douloureuse boobu lu doy waar la day di nga ci gis ñoo xam ni bu ñëwee ci ñoom dañu yuuxu ak dugg sax ci ay ron lal ndax metti yooyu nag am na ci ñoo xam ne bu ñu ko fajul loolu ba noppi yàlla dogal yëgu ma ne woon sax dafa amul woon doom ba loola fajoo borom këram moo ñëw ni ma ah macha allah loolu de faju na mais fii mu ne sax dafa am leneen lu fajuwaale mooy dafa amul woon doom mais léegi macha allah ma ni ko waaw loolu dañuy faral di ànd lu demee ni kyste lu demee ni fibrome ak yi demee noonu yooyu yëpp da leen di dal te day dox seen diggante ak njuróom doom tey tamit day metti seeni biir di tax li liñ doon wax léegi du ñu am benn soxla ci seen borom kër euh, walla bu ñu demee ba joteeg borom kër bi muy metti te xam nga ni yooyu baaxawul loon metti loo xam ne bànneex lañ ci doon séentu su demee ba nga xam ni coono ak mettit nga ciy am wax dëgg yàlla fatigue douleur feneen lañ ko doon séentu waaw ay coono ki miti feneen lañ ko seen mais du foofu kon yooyu yëpp bokk na ci feebari jigéen ñi ak lu demee ni rab itam ci la dina dox seen diggante ak njurum doom ak yu demee noonu waaye yooyu yëpp xam naa détails yi du fi xaj xam naa beneen yoon rek ñu gën ci ñu euh, gën ko gën a mën a frañ fante kon daal incha allah foofu itam loolu lañ la ci doon euh, tuddal daal jërëjëf imam suñu xool seet na bu baax baax léegi kas laaj bu mujj bi rek maanaam mboolem li saafara base bi nga koy saafara lan la doon jërëjëf comme ni ma la ko waxee woon léegi nun moom nax nu nu alij wala wees fii nooy faj waaye yàlla mooy wéral waaw baas bi daal xam nañu ni kii lii moo ko dal lii lañu ci yàlla woon ci li nga xam ni moom lañ moom lañ ci daan def yàlla di ko wéral loola lañu koy jox bàyyee ak yàlla waaw bu wéree ba ni kii alhamdulilah man de kii naa ñu ne ko ko nag nu sant yàlla ndax nun kat sabab bi la ñu yoroon nag di faj waaye kii wéral mooy yàlla kon nag ñu santaat bu baax borom bi tabaaraka wa taala kon kon su ko defee wax dëgg yàlla téléspectateurs yi doon seetaan dégg ngeen fii ne li nga xam ne moom la ñu waxtaan ak ki nga xam ne mooy imam Madiara Niane nekk fii ci parcelle ci golf cité Aliou Sow villa yi nga xam ne yéen doon bàyyi xel seen émission bi nga xam ne mooy xam sa démb li ñu tey ki nga xam ne mooy imam Madiara Niane nekk fii ci fi nga xamante ni mooy golf cité Aliou Sow villa numéro 48 numéro téléphone yi nga xamante ni moom lañ ñu jëg mën a jokkoo ak moom ci cabinet centre Darou Salam pour la médecine islamique et traditionnelle mooy 77 648 24 01 wala Tigo bi di 76 386 23 24 wala ba tey Expresso bi di 70 605 91 29. imam Maa Jaara ñaan boo ci woote ci numéro yooyu rek daal di mën a jokkoo ak moom incha allah boo ñëwee mu defal la consultation xool sa jàngoro bi nga xam ne moo ne ci sa yaram sama borom daal di ciy def tawféex ngeen jëf jëflante sama borom def ci tawféex ci kattanam imam kaddu gu mujj gi lan lay doon. kaddu gu mujj gi de xanaa di sant bu baax di gërëm téléspectateurs yi ñu doon seetaan yépp ak fépp fu ñu toll di leen seetaan di leen ñaanal yàlla mu dolli leen wér yaram ndax wér yaram comme ni ma ko waxee ci jàmm. la bokk te foo ko ñàkkee il faut nga bàyyi lépp loo nekkoon wuti ko kon nag yal na leen yàlla defal jàmm yal na leen yàlla may wér yaram fépp fu ay nekk daal di nu seetaan ñu ngi lay ñaanal yàlla di la wax ne jàmm yàlla ak yéen de mu barkeem yàlla nekk ci yéen wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf imam jërëjëf itam yéen téléspectateurs yi nga xam ne ngeen doon seetaan seen émission bii di xam sa démb ñu koy dawal fi nga xamante ni mooy ci Africa 7 TV di leen jox dig daje incha beneen yoon ci kàttanu suñu borom ak keneen ku ñu war a dalal wala bu aajoo yi tamit moom ñu war cee di delluwaat ak moom ndax ni ma leen ko waxee sànq bëri na lu mu nëbb loo xam ne war na génn dinañ ci daal di dikkaat ak moom incha allah ci kàttanu borom bi